de la que nit ñi euh, xëy na euh, dematuñu wala wàññeeku na mais bon lu ñu gis euh, Saint-Louis mooy que phénomène bi mu ngi fii ba léegi mu ngi gën a gën a law peut-être bu temps sedd day wàcc mais tàngoor bu ñëwee dañuy demaat. donc problème bu bu xaw a xóot la ci suñu société. je pense que en tout cas bu ñu jéemee xool ñiy dem en général c'est dans les régions. Euh, soit amuñu formation wala ñu ngi ci mbéy euh, tourisme élevage c'est des secteurs pêche donc c'est des secteurs agricoles euh, ou touristiques mhm. en général foofu la ñuy jóge mhm. ce qui fait que bon lac wax nañ ko sànq c'est-à-dire on a un problème de crise sociale et économique mais aussi un, un problème de société mhm. c'est les deux tu as une crise économique, c'est la base de, de, des départs, mais tu as aussi une crise de société. C'est-à-dire que les jeunes ont perdu leur repère. Bah, ce qui fait que euh, voyager, pour ñoom c'est un rêve d'abord. Ensuite, peut-être que man nga tekki. Et loolu aussi, euh, il faut tenir compte parce que ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ñoom la ñuy gis ñuy tabax ñoom ñuy gis ñooy financer ñoom ñooy la diaspora par exemple ñu ne la lu muy indi. moo ëpp doole aide publique euh, buy ñëwee dans les pays européens donc y un problème de de je crois de fond il faudrait peut-être que comme euh, certains l'ont dit que état bi ak collectivités territoriales yi ak communauté yi ñuy xool cette question la comment la traiter. te ne pas faire la politique de l'autruche parce que loolu lañu fi gis. mais ça ne réglera jamais. problème baa ngi fi kenn du ci wax. voilà. donc il faut accepter que am un diagnostic national sur la sur la question c'est une bien question sûr, globale bien sûr c'est social c'est culturel c'est religieux c'est bon c'est la jeunesse je pense que laaj na quand même bi jël responsabilité au moins faire des assises sur euh, sur la question mm -hmm. maintenant aussi il faut qu'il y ait des politiques publiques mm-hmm. ça fu ñu nekk nii ko amul benn collectivité locale wala benn communauté bu mën a téye xale yooyu ça aussi c'est de l'utopie ah y l'État mu mën a am des politiques publiques d'insertion des jeunes par exemple Diagne nee na sànq pour les étudiants mais un étudiant qui est dans le monde rural yow tu vas étudier pendant trois ans quatre ans nga am sa diplôme nga am sa formation sa papa amul les moyens sa yaay amul les moyens sa nijaay amul les moyens. wala li ñu amoon jàppale nañ la ko pour nga jàng. et tu deviens un chômeur diplômé. Mm-hmm. une charge pour la famille. un chômeur diplômé dafa metti ah. c'est-à-dire bëgg nga am doom bëgg nga am kër bëgg nga bëgg nga bëgg comme tout le monde mais soo ko amul te état bi jàppalu la dara mais tu n'as qu'une solution c'est d'aller à l'étranger. d'accord mm-hmm. et je pense que quand même war nañu am des projet pilotes. pour maintenir les jeunes euh, diplômés maintenant am na aussi les métiers moi je regarde euh, souvent euh, les Sénégalais à l'étranger ñuy dem dans la diaspora là lu bon bon am na nañu métier mais le problème c'est qu'ils sont pas formés parce que activité bi ñuy def à l'étranger c'est quoi ils sont dans l'agriculture et dans le commerce loolu loolu rek la ñu mën a def ah. la main d'œuvre, la main d'œuvre. c'est de la main d'œuvre. Oui. qui n'est pas qualifiée. mais pourquoi nous on ne travaille pas pour qu'on ait une main d'œuvre qualifiée même si ñu dem à l'étranger mais ils vont avec une qualification comme comme comme il l'a dit mais gis nga depuis 60 ba tey ji boo demoon France États-Unis suñu diaspora bi ils sont à 10 20 ku nekk indi 10 20 euros ngeen am lu ngeen di lekk fi ngeen di loger on de c'est on on crée des pauvres de l'Europe et, et loolu il faut quand même que euh, Sénégal en tout cas jóg ci xool. il faut que l'immigration il faut l'organiser.